Sunugal 24 point net l'information yi ñuy seetaan si Sunugal 24 point net tey fii nii Grand Médine si ko ñu Ndongolo parce que dañ fay dégg benn décès bu fi amoon léegi si tiis boobu nag moo tax ñu ñëw fi doxantu xool waa koñ bi nuñ dundee loolu ba ñu ngi sax nii ak Ndongolo war a siq moom waxtaan sëñ bi na ngeen def Ndongolo. waaw ñu ngi fi rek ginnaaw ma sant yàlla. julli si yonent bi sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu waa Grand Médine di delluwaat di nuyu waa Grand Médine di delluwaat di nuyu waa Grand Médine di nuy waa parcelle un ba 26 surtout waa 18 ak waa 22 di nuyu képp ki nga xamante ji mooy seetaan suñu gaal 24 di nuyu ñëpp daal wax dëgg yàlla. léegi yow gis nañu tiis bu fi am léegi tiis boobu est-ce que mën nga see ñëwaat est que mën nga ñëw expliquer nu mu fa demee. waaw tiis bi moom maanaam ñëpp la métti daal képp kuy doomu Grand Médine ak képp kuy yeewoo Grand Médine rek maanaam tu si met na la rawatina man mi toog parce que tey jii kër famille boobu laa jógee léegi bàyyi ji bi kër famille laa jóge léegi am man maana foofu ngeen waroon fekk sax mais daa fekk waxtaan bi jeextaal ba musuwaar bi ma yor sax yaayam mu ko jox parce que am li nga xam ne bu xewee rek yow mi nga xam ne yaa am tur rek sa tur mun na dem foo xam te si du fa yegg muy lu ñaaw la muy lu rafet la daal lu nekk maa ngi koy dégg nag mais man sama jaan wàcc na ndax lu ma waroon def naa ko. yaa ngi wax euh, li nga waroon def nga ko loolu sax xam ne ko après xam naa dinañ si ñëw léegi expliqué ñu rek euh, dee bi nu nu mu demee nan la nan la meurtrier bi reyee kooku ak ñoom ñaar ban relation lañu amoon. non man moom yëgu ma tinu ma quoi dañoo tërë bàyyi minu yooyu mën na ko bul génn kër gi booy tëdd nga tëj bunt bi. parce que dama ne yow fa yaay dem entraînement ma ne sama mag bii yaa ngi dégg mais après si yooyu bay dégg naa ñu ne courant daa ko pon grammes ay deux heures matin mais booy bi si lu ma expliqué mooy dafa gënoon di féexlu toog si bundu kër gi après moo booy ñuy xeex daal ba ñuy xeex léegi booy bi ko xaw ma lan si gestu dem si benn bant jam ko booy bi ay deux boobu maa ngi nelaw fanaanu fi yaa ma dégg jour boobu fanaanu fi ci laa yeewu maa biddindi sax ci laa yeewu musaa yee ma ne ma mbër ma ko naa mun Iba fanaanu fi de ma fanaanu fi te mus koo def <tsk> ah garaawul bàyyi ma yeewu sànq suñu bopp day metti ci laa yeewu ay 9 heures 10 yooyu ci laa dégg moteur bu xew Grand Médine daal ma la mu demee noonu ab si lañ toog ay 5 heures 6 heures gisuma booy bi nga xam nga dégg aba ci lañ ci la ma woo téléphone ne ma foo nekk. mu ne ko maa ngi si mu nekk ma ko yow foo nekk yow mu ne Kër Massar ma ne ko fépp foo mënti nekk ñëwal su mu nekk maa xaar mu ñëw bu mu ñëwee balaa mu ñëw mu dégg moo xeex ak booy bi. Ah, non yëgul ma ko woon dama déggoon meurtre rek dégg ensuite si la ñëw foo nekk mu ne maa ngi Kër Massar ñuul fekkoon fii léegi ma ko loo def moom dama xeex démb ak benn booy jam ko. mais moom ba ma koy jam ba may daw dem Kër na trop yaa ngi dégg ma ko yaa ko def mu ne ko def ma sol sama yére ànd ak ñii yóbbu ko ba police jébal ko waa yoon. parce que man nit tamit su ma nekk ak yow si dëgg laay nekk ak yow Grand Médine fi laa juddoo yoroo fi màggee fi kenn ma dégg si affaire yu coow wala affaire yu police wala dugg ni fii génn fii ndax man tamit kilifa dëkk bi tamit dëgg la ñoo fi mag bëri na mais kilifa dëkk bi understand nga loolu quoi après ensuite. c'est-à-dire ay rumeur mais lu ma ciy métti rek mooy sama tur lu mu ci dem te man defuma ah Ndongo Lo nii Ndongo Lo naa xam nga ni ko lu ne dégg mais man Ndongo Lo defuma waxuma yabalewu ma ko def yëguma tinuma ba muy am maa ngi nelaw kër boobu laa jógee léegi di leen jaara ji parce que tamit dafa metti damay seet bu nekkoon suma rakk la xam nga or ko suma rakk la sax ndax ñoo bokk grand mine or bu nekkoon suma rakk lañ jam loolu dafay metti billaahi wallaahi loolu moo tax agent daal métti na ma daal. non benn booy bi miinu ma ko noonu mais magam ñoo bokk ndigal ñoo bokk bi ñu entraîné mais booy bi ay 16 ans 17 ans la am daal ci lu ma jàpp ba affaire amee nag léegi ci la woo yaayam expliqué ko <coughs> yaayam tam gëm yàlla bu bëgg dee ne ma tamit ndogal la rek ma ko man nag sa doom man en personne maa ko jël yóbbu ko police. ndax ma du ma nekk ak nit ki si affaire yi caaxaan parce que yooyu du ma ci dugg ndax sama lu ko yàq dafa yomb say na ma si dégg mais képp ku si wax si loo xam ne leerul rek naa rek tax si barke ajuma ji yaay xale góor moo ne mbir suñu borom la ndogal la mu ko man man mi ngi ko dénkoon maa ko jël ko yoon teg si loxoy yoon ndax ma far kenn si affaire yi ñàkk fayda ndax man sama tur lu ko yóbbu dafa yomb daal waaw loolu la quoi sama sama responsabilité la nekkoon parce que tey jii nii xam doo ko bañ yaa mën la ko dénk billaahi wallaahi amaana xëy wàcc laa ko xamee mais xale yi léegi bu ñu def naka surul noonu xam doo ko yëg te man mbër laa damay tëral tëdd di teel dem amaana bu def yenn yi sax doo ko yëg mais yëguma tinuma mais sama der bi suñu ñaaw rek ma xaw a métti quoi loolu la fa laa jóge léegi waaw métti na trop métti na trop amaan tey doom dafa dafa dafa sori si xolu yaay daal te maanaam yenn yi dee day am moom day day am mais ak deewam yàlla moom bakkanam moom moo ko war a jël boppam mais mun def si kaw suuf war ko jël amaan nag yàlla mooy jaarale ay mbiram si ay doomu aadama mais métti na ma trop ñoom ñoo méttee billaahi wallaahi métti na métti bu ko raw ndax su ma sañoon du amee lu takk si man waaw léegi lan lan la gars wax si affaire jugement ak yow nan nga a taxawee. man moom ba mu ko jébbalee si yoon laa ci pare ndax yoon xam na liggéeyam te gën naa dina def liggéeyam daal. Mhm. man naa si tax yow naa ko toog si loxo yoon parce que tamit ñor araang ñor karaange réew mi daal loolu la quoi. waaw message mooy mooy maanaam nañ gën a góorgóorlu war rek parce que grand tey ay a fi nekk xam ay bañkat ñoo fi nekk man saa mooy bëri ji rek lu may bañ ñu koy woyoo grand ay bande fi dëkk ay léew fi dëkk ak billaahi wallaahi taala grand jàmm moo fi nekk jàmm moom grand billaahi wallaahi ñu fi dëkk xam nañ ci dara amaan ñu fi dëkkul nag ñuy wax loolu mais maa ngi jalaat waa kër booy bi di leen jalaat bu baax a baax a baax a baax di leen kon encore di leen jaalewaat di leen jégalu parce que tamit du sama coobare te nekkul coobare booy bi amaan na yàlla moo dogal booy bi loxoom lay jaar loolu kenn mun si dara mais dañ jël lépp toog si loxo suñu borom. grand waa grand bi nag encore fois di jaale ñëpp di leen jégalu bu baax a baax a baax ci li nga xam ne tey booy bi moom ma def mais tamit yàlla mooy dogal dañ jël lépp toog si loxo suñu borom daal. Grand Médine jàmm fi am jàmm moom Grand Médine Grand Médine amul bandit amul agresseur wala bu ko amee it yëguma ko ñii lay àndal ñi nekk fii lay àndal duñ bandi duñ agresseur duñ dara amaana nag si du jàmm borom bi maa ko doog gëm tey si du jàmm borom loo ko gaa yi wax yëpp gëmuma ko woon maa ko doog a gëm tey amaana defuma waxuma yëguma yëgaanewu ma mais sama tur dem na ci te mu siy ñaaw ak képp kuy supporter nangu la fu mu nekk rek te bu nga xam ne sa mbër deful waxul yëgul tinul daal xam nga nu ma gaa yi ñaan nag man cat moo doy waar rek mais sant yàlla daal mais gannaaw mi amul bandi. ndongo nag sama rax la ñoo bokk ndey xëy na lii li ñu dal nii dañu ne ndogal sunu borom la ndax maak moom ñoo waroon yeewu dem entraîné ji fii laa fanaan jour boobu fanaan sax sama gaale ñu mujjee bidanti te boobu booy bi ñëw na dugg si biir fekk ñu si biir. ba nangoo ne ko sooy génn tëjal sooy su nekkee da ngay kii ñëwal nga tëj bunt mu nga ñu tëdd courant daa coupé xam rek mais lépp ba muy am ñun fekk na ñu ngi nelaw yëguñu sax lu xew billaahi wallaahi taalaay bañ yeewoo si lañ dégg rumeur du daw moom mi si boppam billaahi wallaahi génn na ba dox ba si taliba di déglu pour xam lan moo xew kalañ rey ba ñëwaat dugg si biir toog ne ma booy am na ku ñu rey de ma ne ko ah mu ne ma waaw raqu ndigal la ñu ngeeg numéro ndigal ñu woo ko téléphone sa dañ ko rey dégg na affaire mu ne waaw mais boobu xamaguñ xamuñu sax ki ko rey ñun kuñ jege la billaahi wallaahi ñu toog si biir ba ay yenn heures yi booy bi woote téléphone ne ko nongo maa ngi nii nongo ne foo nekk dem si guddi da doon xeex dégg naa da nga doon si guddi mu ne ko waaw ki ma doon xeexal sax dama kaa mujjee jam mais jam naa ko mais sonn na trop instant damaa tiit bëggoon naa ñibbi ñëw sax tëdd sax damaa tiit ba daw ñu ne ko foo nekk mu ne ñu Kër Masaar nangu na ko ñibbisi xaw ma foofu lay def foofu de léegi léegi nga ñëw ba mu ñëwee booy bi ñu expliqué ne da doon xeex ak bi si mbedd bi for bant jam ko après su la tiitee moom daw loolu lañ si am après nangu na ko yaa yaa ko jam mun ne ko waat xam nga ki nga jam moo dee léegi xaarum ma ñëw nangu dugg si biir sol yére ñu ñoo ko yóbbu police jàpp si loxo ba yóbbu ko police jébal ko waa police mais nag xëy na ndogul suñu borom la ndax tey ki ñu ki ñu rey ni tey magam ñoo bokk écrit ndigal musuñoo musuñoo xam musuñoo musul xam si ñun lu bon barki Seydina Grand Médine ba Grand Médine daj soo laajtee Ndongo Lo ñu muy àndal mosoo dégg ñu ne kenn jàpp nañ ko si ñu ngi doog a dem police si loxo booy ñu jàpp yóbbu ko billaahi wallaahi taalaahi musuñoo am problème fenn entraîné lañ xam tëdd nelaw ku ñu xam dëgg-dëgg loolu la ñuy seede si koñ bi laajteel dugg dugal fii yëpp Grand Médine nga laajte wala parcelle 6 heures du matin la ñuy yeew dem entraîné suñ ñëwee tëdd nañ ngoon maa bi añ nañ gis na heure yaa ngi gis sànq wax añ bi ñëw na heure boobu la ñuy añ cinq heures ñu taxaat daal di dem entraîné ñëwaat dugaat si biir tëdd bilaay di euh, décès bi fi am léegi yow yéen seen waa kër nan la ñuy dundee décès boobu ah décès bi moom wax dëgg fa yàlla métti na trop bilaay métti na trop trop bilaay walaay ba si koñ bi xam ba si fépp ba dëkk buñ ko denc sax cinq jours la fa am si màggal gi ñëpp la métti métti nañ trop bilaay mais yéen nan ngeen ko yëgee décès bi. ak ah, décès bi ni ko yëgee mooy lu dul man man lañ woo téléphone man maa yeewu deux heures du matin moo yeewu deux heures du matin ni laa wàcc jaar nii moo ñëw dugg si biir gàlle bi gaa yëpp coob xam nga may ma xiif quoi amul lu ma lekk ma ne xam garaaw ba am baabu suba su ma xëyee mooy loolu noonu maa ñëw tëdd tëdd si gàlle bi ni si kaw terrasse bi tëdd tuuti rek patron mu woo ma téléphone na ma bàyyi sëriñ muy tëdd bunt atelier neen dañ koo jam kooku fi kuy defar puna foofu moo ko wax dañ koo jam quoi ma daw ma jóge fii ma daw ba foofu ba ma ñëwee dajek oto police bi taxaw dajek oto sapeur bi ma tourné rek gis booy bi tëdd sedd loolu laa si am. léegi yow ba nga si amee loolu après xanaa laajte nga lan moo xew expliqué nañ la ñoom ñaar daal lan lan lañ la jote woon ba dee bi am si. non abara man ba loolu amee ba loolu amee dañoo ànd ak suñu néew yóbbu dem police sapeur dem yóbbu ko CEDEAO ñu def la ñuy def ba ñëwee fajar jot ñu ñëw maire bi nañu ana bàyyi sëriñ paa bi man maa woo paa bi waxoo paa bi dem lijjanti loolu même ñu ne ko laaj wax la mu ma bu ma demee ba ñëw naa la wax moom demee ba ñëw ba 6 heures yooyu noonu ñu ne ñu 8 heures 9 heures ngeen ñëw fi jot seen koor ñu ñëw ñu ne koor duñ ko mën a jotaat yooyu noonu xam nga si la ñëwee ba foofu ñëw ba waaw leen ñibbisee boobu ñu ñibbisee gis maire bi maire bi ñu ana bàyyi sëriñ ñu ko deena léegi kër gi kenn doo doo dégg parce que booy boo xam ne amul du tooñ ko waa du def dara du xuloo kenn fii koñ bi mosu xuloon nit nit bi mënoo taxaw ne la kii xuloo naag moom reetaan la si ko gars yi moom xale yu ndaw yi ñoom moromam boo yi nii lay àndal di foo billaahi munoo ne kii la xaritam mooy loolu noonu. mais ñoom ñaar xamoon xamoon ngeen leen ay xarit lañ woon wala dañoo xamante woon nii rek si koñ bi. parce que kooku mosuma musul musul xaritoog moom man mun naa waat si yàlla ne moom bu tooñ doon am kooku mooy tooñ mais lu am am na ba pare quoi dañuy nekk tamit lu am am na dañuy sant yàlla tamit xëy na yàlla ni la ko bëggee woon xam nga kooku moom wax dëgg fa yàlla mosuma ko xamee te kooku man. Iba dafa ma sax ba bu ñu nuyoon maa ngi moom ñu xoolante maa ngi moom billaa wallaay man nag gëm naa ne tamit bu xamoon ne sama rakk la du cox coow moom ba ba kay ba ray man gëm naa loolu. mais aussi comme sànq ñu ngi doon wax ak euh, mbër bi sànq fii nii léegi Ndongo léegi moom Ndongo nee na ñu bari dañ ko doon tuumaal ni moom taq na si yooyu daal léegi nan nga gisee loolu. waaw xëy na ñun ba affaire bi amee dégg nañ ñu naan dégg nañ ñu bëri man fii laay toog chaque jour dégg nañ lu bëree bëree bëri si dëkk bi daneen ama ñoo xam ne ñoom ñooy ànd chaque jour ñu bëri sib sona lee mais man dama ànd ak sama xel bu sel xel bu dal xam nga ba ma demee ba xam ne résultat bi ba dem ba xam ne am naa lu ma leer nañi sa waay euh, kalaaw laa fekk fu mu toog njëkk naa ko romb sax mais waxuma dara fekk amu woon lu ma leer foofu ma ñëw foofu fekk ko fa dinaa fa lu bëri mille fois ma ñëw fekk ko fa ne ko ana saay saay laa soxla woon man man ko koy laaj xol nag quoi moom tamit dafa dal ba bëgg a dee quoi dal quoi na ma saawaay nekk fi ko solo ma nee nga ñëw toog ku koy na toog si biir xaaroo ma ne ko du ma toog biir si bunt bi laay toog mu ne ma ndax yore kër mu ñëw na ma ndax yore kër ma jàndi ko foofu moom moom mënoon na nekk ah booy bu ndaw bi du ma def yi xaama dafa tax bu loolu noonu mais dafa dal ànd ak maîtrise yooyu ñëw mu ne ma muy fële que ñoom bekaay numéro 2 dem si bekaay naka booy bi magam bu jigéen fa lay sëy ma dem fa laaj magam bi magam bi ne ma mooy ko ñoom ndongo a ne ko ah Ibra Baye moom moo jaarale rakk mu ne ma Ibra est-ce mooy fi Ibra nekk fi de mooy noonu ma xam ne fu ma fa toogee coow bi day bëri ma dem ba ma ñëwee toog si la ma ndongo wooyee woowaat ma am naa am am naa gerte ne mën naa ko laaj sax taxaw na ko laaj na ko booy bi kii moo ko rey nangam nangam parce que ak lu mu jot lu mu mën a mën a lii ndongo ba ma ko xamee yàggul man booy bi mën naa waat ne booy bi moom ko ñu ko xam parce que booy bi dugg na dem la làmbam lambam boobu dem na laamu nongo ndongoloo petit ñaa boobu maa ci kaw turbine bi boobu dunu ma sax affaire de dem esaat bëre nii laamu ndongoloo petit ñaa bañ tojee boppu booy bi ah benn gaañu nongo bu sësul ndongo du nee na bu ma tudd turam fenn bu sësul ndongo moo jël booy bi yóbbu ko hôpital barki sëñ Fall sama mooy sama mooy moo génn nii moo maanaam loolu noonu billaahi wallaahi noonu la affaire bi demee gaañ billaahi léegi instant yi nii yow pour terminer ban yëg-yëg nga am ak looy looy terminer daal ak aussi message bi ngay lancé si waa koñ bi waa Grand Médine. waaw lu may terminer moom mooy affaire bi métti na waaw na trop mais tamit dañuy sant yàlla xëy na tamit moom lu mu lu mu def lu mu mu génnee àdduna nii moom lu mu am man bu ma leeroon man suma ma ma dee ma dama koy am damay dee baax mu dund war na alxuraani karim seede yoo xam ne man mi sax musuma woon xam si moom ak yeneen ak yeneen ak yeneen billaa wallaay mooy lool ak gis nit yoo xam ne mosuma leen gis billaahi mosuma leen gis sax dañoo mujjee wekk baas yi bu lépp xool a kër gi ba tey gaa yi ngi dugg di génn billaahi mooy loolu mais sant yàlla tamit ñun jàppale ñu ñun tamit ñun jeune Grand Médine ñun xam nañ doon jeune Grand Médine su boppam man du ma jël xeer dóor ko deretu Grand Médine mën na xeex ñoom soo ngoon mais duñ jël jam di rey nit musuma ko gis Grand ñu ne booy bi moo dëgg Grand Médine rey na kii musuma ko gis war na alxuraane karim musuma ko gis mais sant yàlla tamit xëy na tamit yàlla ni la ko bëggee woon di sant yàlla tamit xam nga di jégalu nongaloo bu baax parce que am na wax wax jot a jug yóbbu moom du si lenn du si lenn barki sëñ Fallou du si lenn àdduna moo tëddee nii quoi nit moom boo siwee boo siwee boo siwee da ngay weex dunk fu ne ñun ñoo nañ fii ne ñu nongaloo da ngeen ko a plante ay mbër yu bëri barki yàlla ñoo nañ nongaloo da a plante mais xëy na tamit ñooñu tamit seen xol loolu toppoon parce ñu ñoom ba ñuy wax loolu xol lañ doon waxee billaahi mais di sant yàlla bu wér xam nga xëy na yàlla ni la ko bëggee woon loolu salaamaaleykum soxna si soxna si tur bi nan la. maaleykum salaam man ci bës si la laa tudd. Euh, soxna Kumba gis nañ jéye bu am fii nii seen koñ Grand Médine léegi yéen dese boobu nangeen ko yëgee ak yow nga bokk ak euh, ki génn àdduna. waaw ki génn àdduna moom sama yaay moo papaam ñoo bokk ndey ak baay sama yaay jiitu papaam topp ci ñu bokk ndey ak baay ah ñu yëge ko mbetteel nag ak tiis rek. ak mbetteel bu metti ndax xale bi ci boppam day nekk xale bu dal xale bu am yërmande xale boo xam ne bariwul ay dugg-dugg ñaw yi papaam yónni ko mu dem ñëw loolu rek la xale bi manoon dëgg yàlla xale bu dal la boo xam ne kenn foogutoon ne lii dina dal ci kawam waaw. comme yow d'après ni nga waxee nii gis nañ ni yow daal affaire bi metti na leen yéen. trop trop ndax xale bi. dafa féete woon baayam fu ne ndax papa mag la yor ay xar mooy sang mooy jëndi ngooñ su papaam de yëkkati di sax du dem nangoo xëy danaan ko baal ma yëkkatil la ko yërëm yaayam nekk nit koo xam ne xëy na am na ay mag yu góor ñit ak tofoom waaye tey ji magam sax su jotee moom danga koy gis mu koy romb rombul di bëgg a tuddunteeg moom xamul mer xamul tongo xamul xeex wax dëgg yàlla ku deenu ber la waxam sax bariwul boo ko xoolee ci photo yi nim mu ne këme nii noonu lay mel xanaa bu xiifee ana lekk gi lay wax ana ceeb bi ana ceeb bi ñu koy kale waaye amul benn problème koñ bi ñëpp maase ci nañ ne bu rombee nuyu la ana ñi fi ñëwoon ñoo xam ne nee nañ bu la rombee moom moo lay njëkk a nuyu sax bala nga koo nuyu liggéey ñu wàcc moo tax mbett mi métti lool lool mais gis nañu aussi ñu bari wax nañ ko nee nañ Grand Médine xale lu ñuy xeex dafa bari léegi yow loolu ban message ngay lancé ndaw Grand Médine yi. man de Grand Médine maa fi nekkoon 83 stade l'amitié biñ koy defar boobu laa fi nekkoon fi laa jànkoo fi laa màggee ba ni ma seyee waaye lii fi am moom ñu di ko dégg musu fi am ay jam na nit ay rey na nit ñu ngi koy dogg a dégg nag ci année bii moom. wax dëgg yàlla ndax dëkk boo xamee la ñu bari dëkku kii lañ ko def kon xale yi ñu bàyyi xeex bàyyi yor ngànnaay ndax fekk sa moroomu jullit ubbi avenir am defagu ci dara nga lor ko di dox loolu jullit sax waru koo def kon lu métti la sàkkaa fi mu dalee moom metti na lool moom Ndongo loo ñëw na fii def acte bu rafet ndax su ko neexoon mu rawale xale bi su ko neexoon nga ñu dégg ci dara waaye bi nga xamee ne moom yéex naa yëg ne xale bi ci moom la nekk moo ko def biñ ko ko waxee dafa woo xale bi na ko wuy si ma léegi ak yor xale ni mu méttee ndeyam jox ko ko waaye bi acte bi amee dafa xam ne doomu aadama la boom xam ne ki mu boom rakkam la mu jàpp ci loxoom yóbbu ko ba police jébbal ko police moo xam police dañ koy def lu métti waaye loolu lépp xolam muñ na ko ndax li mu def mu jégg police kon ku ci wax lu ñaaw wala nga di ko ci def nga ba ko te xool sa digganteeg sa tra ay bàmmeel deful waxul fekkewul yëgul tinu ñun ñuy mbokk xale bi xam nañ ne deful waxul kon ku ciy wax rek nga xool sa traay bàmmeel xam li ngay wax bu baax a baax a baax yéen nag ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ndax bi ñu àndee métit bi ba tey yéen ñëpp kenn ku ne ñëw nga fi bokk ak ñun métit bi kon ñoo ngi leen di ñaanal seen rajo bi suñ borom def ci barke ak xéewal ci barke sëñ Fallou Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur c'est ici même